ilaha illallah muhammadu rasulullah ah dafa tàng affaire ah, bi man nga yéer. yéer na. waaw pax la ruq ba ñu yéer na ko. ruq teraanga nga ko tegoon moo tax nga di ma yéer na xam nga lu ma la bëgg a yëgal man sa yii ngay def ci kër gi naan yaa borom dëkk bi xaw ma yaa borom koñ bi xaw ma yaa borom mbedd mi man bu ma ci boole. ah bu dee da nga doon yaa ngi door a raay kaaba ga jàppal ni sa aj nangu na bi nga duggee ci man. man la ñuy ziar. yow la ñuy ziar yow borom dëkk bi yow wuyu bàll bi gisee di nga xam ne voyageur ji na voyageur ji na bu dajee droit ñu muus. këyit yu valable du ko tax a jaar. sama sama yoon dafa nekk ci gendarme ah. ma tooñ de. Eh, eh, eh, ma may ma sa kër bari na may ma ko rek. may ma ko lii doo ko réglé maa koy réglé maa naa maa ko ñaan borom dëkk bi may ma ko. yow réew nga xamal li ngay waxee sa morom néew fi tey na nga xam ne kilifa ngay waxal. waaw kii soo leen ko man xam naa ko. <laughs> sa dégg jéggeeg sa réel réel li ji ngay def nit def na ko ci sama kanam mu soppi ko def ko mala kay koo dindi mbóot laa ko def ah. mbóot xaw eh, xaw ma sa kanam ko daw gi mel ne toggantu li ngay caga eh, ma tuddee eh, kër na mel ni pantre sëriñ ban bi nga doon wëy yu nga doon man mu wax ma caga mu wax ma caga bay bay bay bay bay boobu man la xoolal xoolal ko man la ko wax caga man la caga caga bàyyi ma jël caga bi léegi waxu la ko man la wax caga maay bi jël naa ko jël naa ko yow waxu la ko man la ko wax léegi maay caga bi maay caga bi dama taali kër gi. bul taal kër gi. rusu naa la li nga ma yorali bari na. tey ma taali kër gi bul taal dama la ko ñaan bul taal. kali dina taali kër gi. kali taal suma xaali jug na. bul taal suma xaali jug na. sa xaal jug na de kii tooñu na ma. sa xaal jug na de waaye bul taal kër gi nda kër gi maa fi ne sama jabar fi ne sama doom fi ne boo taalee kër gi may perte bul taal caga bi moo la naqari jël naa caga sa moom moo may rey jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo yow nii gàcce kese la ci man waaye Adama li mu def tegu ko fenn te du dëgg du yoon ndaxte man d'accorduma benn yoon ak ci état bi nga toll nii moment bi nga toll nii mu bàyyi la fi dem na day tukki mais góor dëkkul fenn contrôle sax mu dem mais booy dem tamit nga dem ci anam bu leer. Mm-hmm. tey man maa ngi nii sama warugar yëpp maa ngi koy def. heure bu ma xëy naa jël suma téléphone woo mais day sonné ba coupé su ma ko envoyé vocal mu lire ko te du tontu mais lu xew bu fekkee yow tamit am nga ci lu la leer nga wax ma. Cheikh man de maa la gën a jaaxle fuuf gën laa jommi aada duma ko woo ba jot ko yow vocal nga wax de man mënatuma ko sax gis aada nag ku ma bett la ndax ku ne bëgg na ma ma bañ sama papa fune ne na ma fa ma bañ gis aada rek na aada la kon aada moom ma waroon sagal suturaal ma ci kër gi nak dama fe nek ak samay nawle du deug fim mu toll nii jaratuma fi dara dara dara man maa nek ni rek di sagu dama sago sago sagu ba seus euh mais nday gis nga man li gëna wax moy nga gëna a dollee muñ parce que sa bir gaal bi li fi dund man xam ko donte ñom bo leen topé yow li nga bëgg ci sa sëy à 100 pour cent dootoo ko am mais man nag sama wargar dinaa ko def li sama wargar mooy aadama sama doomu ndey la mm-hmm. bépp ordonnance boo xamante ne nii am nga ko man naa ko yëg soo ma ko joxee man dinaa ko jënd mm-hmm. incha mooy ordonnance yaa ngi nii comme yaa jënd ordonnance ordonnance yaa ngi nii teel mm. muy jee yow sa deux coups du matin deux coups du soir teel nii. waaw papa teel nii oh, lii ot oh. tegal sa gémmiñ neel nii muut xoolal un deux ordonnances trois ordonnances quatre ordonnances cinq ordonnances six ordonnances sept ordonnances huit ordonnance neuf xam nga ne bàyyi na de lii lépp bàyyi ko jënd ana jëkkër ana jëkkër bàyyi jënd lii lépp ah. fu ngeen ne mais ordonnance bi yaa faatu moo ci nekk waaw yaa faatu ah, gisuma ci ndey Ndiaye waaw yaa parce que ndayam yaa faatu moo jëndoon ordonnance yi te léegi turam a identifier boo demee pharmacie dañuy identifier turam te moom carte d'identité a jënd ordonnance bi nga xamante nii Ndeye Ndiaye lañ ci bind mhm. mais ordonnance bu ñu bind yaa faatu loolu yow yaa ko. booy xanaa boo yónni wuñ la pour nga jënd ordonnance. kenn yónni man sama doole laay xeexee. Mhm. per, yow ëmboo ki mom mo ëmb ki moy ëmb way man duma ay wax des koy des des koy woddu sa wax mo ñaaw ta yow rew nga ndax mo don sa bay do wax ak man ni nit day seet wax bu rafet mu koy wax mais fo fek kuy dëngal mbaxane ni di ngand ngand di def ni du wax wax bu jaar yoon ku rew nga est ce que sama papa bu melone ni yow comportement bi nga yore ni dama koy teural yore paaka di ko fiiriir kon bandi mo dugg ci kër gi waaw kon bandi mo dugg ci kër gi man nak bandi mënu maa tawandoo mu bëgg xam mo ndax yow da nga jox wala joxo xaalis ordonnance rek ma koy jox wala joxoo ma xaalis ordonnance. joxuma la benn xaalis ordonnance. joxuma benn xaalis su ma lu may jox Ndeye Ndiaye mii laa koy jox. ah Ndeye Ndiaye ngay léegi man mën ngaa est-ce que mën ngaa jug fekk si ma ci kaw ngay xulli bët di wengale ay casquette di jaay affaire saaba génne ci biir allez door at ñëwal sa tubay jox. oui sama papa moom nii lañ koy bàyyi. la ilaha illallah. yow Ndeye Ndiaye man foogoon naa yow nit nga mais yow du nit yow situation yi ma nekk nga nga war a décanter situation bi ah. may wax nga ay na yow lan la boy mo nek turu ya faatu nga nga appuyer lol yow yow do nek ci fi ma nekk ndey hein yow la pap da nga yaakaar ni nga mel man non la mel. yow ne na yow yay dor kat man doruma doran waaye yow dor na la man de bu ma nekkee kat yow dor way dor na la ndax Adama dor na la ba nga noy nepp dem nga noonu la fat dem. Ah. yow doro way dor na la sa lammi wure wi nak nga mel ko macc laalo de liam liami la bëgg nga tëjal ma sa lammi lu ma teg nga teggi ko xale bi yow lan la yow mbaa liggéey la xëppali xëppali ci sa kaw bàyyi pour nga ma takusan ndey njaay bu ñu nga yàqal ma tàkkusaan nga yàqal ma ba lu ci bi nga ma lu ma teg nga teggi ko yow la